Thank you. mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, comme ni ñu ko daan defee saa su nekk ñëw dem seeti boroom xam-xam yi borom eh, ñi nga xamante ni eh, dañuy jëfandikoo turu yàlla wala ñuy faj li nga xamante ni mooy faju aada ak cosaan di dimbali waa di dimbali askan bi bu baax a baax tey nag dañoo jël suñu ay caméra dugg ci àll bi wër benn borom xam-xam boo xam ne si ni muy woy ci Serigne Ladiane donc moom la ñu fekk tey fii ci àll bi ñu bett ko nag muy def ay yëf Euh, ñu bëgg euh, ñu waxtaan ak moom ci mbir yooyu nga xamante ni euh, moom lay def ak li nga xamante ni tey mooy tolluwaayu réew mi sëñ Ladiane ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan. ansbillahi mina sheytaani rajim bismillahi jul ci yonent yàlla Muhammad ñu ngi sant mboolem wàllu yàlla yi waaye ñu ngi mboolem ñi xam ne ñoo safoo seen bi nga xam ne mooy sunu gaal 24 te di ko bàyyi xel jamono ju nekk ñu wax ne euh, lañ daan wax rek yàlla mi xam moom moo ne yadulaaw foo xedim ñu ngi koy ñaan ci waaye ñu ngi koy mbaaxam ba képp koo xam ne rek nar naa seetaan émission bi wala nar naa jóg ñëw ci ñun te tënk ay bëtam waaye yàlla na fatt ay noppam ba bu ñëw ci waaye képp koo xam ne bu ñu seetaane am am tawféex bu ñëw ci ñun rek lépp nga loo xam ne jàngoroom la wala jafe-jafe bu ñëw ci ñun yàlla saafara ko ñu ngi ñaan yàlla mu ubbi ay bëtam waaye mu ubbi ay xelam waaye mu ubbi ay noppam ba mën ñoo dégg ba mën ñoo gis ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di wax daal asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, sëñ Ladiane ñu fekk la ci euh, àll bi ngay def ay mbir gis nañ fii euh, nga nga rey fi bëy ak yi nga xamante ni ànd na ak moom yëpp ak ni nga mel tey tey ku la gis xam ne ak coppite ku am na ci yow ci ci ci ci li jëmm ji ba ci kàllaama bi tey expliquer ñu li nga xamante ni tey moom la la fekk nga koy def ci àll bi. waaw xam nga jaamu yàlla yu bëree bëri rek koom-koom moo leen ñor waaye jaamu yàlla yu bëree bëri kaaraange moo leen ñor wala jaamu yàlla yu bëree bëri ñu ngi ci souffrance ñu ngi ci jafe-jafe te dara waralu ko rek lu may seytaan wala rab wala jinne parce que dama wax ne yàlla bindul doomu aadama bi pour mu nekk ci jafe-jafe yàlla bindul doomu bi nekk ci souffrance yàlla bindul rek pour jamono ju nekk rek mu nekk ci ñàkk mooy xiif wala mar parce que yàlla dafa ne lépp moo ci gën kon mooy kan te a not parce que yàlla moo bindee loo xam ne dénk ko kenn moo tax lii nga xam ne jël nañ ko muy mbindeef yàlla yi jamono ju nekk lañu ñëw fi ci àll bi yenn saa yi boo képp koo xam ne mi ngi ñuy topp di topp suñu émission xam ne ne rey nañ fi nag rey nañ fi béy rey nañ fi xar yu bëree bëri bëri rek rey ko fii nii lépp ngir dimbalante ak jaamu yàlla yi ngir teg leen ci oon woo xam ne képp ku nekk ci ñàkk nga mën faa jëlee parce que béy bii ñu rey léegi yaakaar naa lii nga gis ma takk ko ndomba la ndomba la goo xam ne béy bu ñuul kukku lañ ko liggéeyee képp koo xam ne dafa bëgg kaaraange maanaam ragal accident ragal police wala ragal agression wala ragal loo xam ne cat la wala làmmiñ la wala lu koy lor buñ ko liggéey ci béy bu ñuul bi incha allahu yàlla dana ko ci defal tawféex wala képp koo xam ne rek dafay xëccoo ci wàllu nguur moo xam maire maire lay xëccoo wala président la wala lépp loo xam ne rek place la boo xam ne dafaa nekk ragal ñu jëlee ko fa parce que damay faral di wax ne xob bi li ko dugal ci pax bi jëlee wu ko fa maanaam xob ngelaw moo ñëw mu naaw dugg ci pax bi waaye ngelaw ko xam ne dafa ragal nekk ci place ragal ñu jëlee ko fa am na lu ñu liggéey loo xam ne ñu koy liggéey ci xobu waswasor incha allah ba def ko ci place ba kenn mënu ko faa jëlee moo fay nekk bu bëgg rek mu jóge fa am na xam tamit dañ nekk ci entreprise ragal ñu jëlee leen fa wala fu ñu dem bu ñu fa liggéey weer wala ñaari am na lu ñu liggéey loo xam ne daf ñuy jox ñaata at la fa bëgg a toog ñu liggéey ko ci kàttan yàlla mbaa xam mu def ko fa kenn mënu ko faa jëlee day wax ne daal bépp mbindeef bu yàlla sàkk rek njariñ la moo xam njanaaw yi la moo xam fas yi la moo xam mbaam yi la moo xam giléem yi la bu ci nekk rek incha allahu jaamu yàlla bi bëgg kom koom bu ñu seesee incha allah ñu liggéeyal ko lu gaaw a gaaw ba nga xam dina am koom-koom te du ci am le borom subhanahu wa wax ne képp ku wax ne reyal sa doom wala sa yaay wala reyal sa mag wala reyal sa rak pour nga am alal wallahi alal jooju boo ko jëlee doo ko jëriñoo ndax li tax mooy bëri na koo xam ne yor na lu jeex maxfuus te munu cee dimbale jaam yàlla yi nam ko amee la parce que bu fekkee da nga ko safaano mu leer la soo dem safara doo def lu baax doo lekk-lekk gu baax fa sa xel du dal waaye mbindee fi yàlla yi mënees na ca def sacrifice rey muy lu mel ni xar wala béy wala nag am ci lu dul jeex doo ci am lan teg borom kon daal ko doon yaatal di ko wax danañ wax ba li ñu war a wax lépp du jeex pour wax la daal même gàncax geeg lépp yàlla def na ci ay secret yoo xam ne jaamu yàlla bi mën na koo jër jëfandikoo jëriñoo ko jariñu ci jariñ ci mbindeef yi taxul benn du ci am na teg borom bi subhanahu wa taala te la neex ci alal mooy soo koy lekk nga lekk ko ak del sooy tëddee nelaw xam ne boo ci jógee yàlla mën laa def sutura ak ndam loolu daal lañ mën a wax ci béy wii waaye liñ ci mën yaatal ci njëriñum am ba ci ki am problème mu am jëkkër incha ci réseau ñu liggéey ko ci loo xam ne léegi tey mu am jëkkër ki nga xam ne rab da ko sonal mën nañ ko ci na ci tey euh, da nga jóg rek pour def ay sarax parce que am ñoo xam ne si nii tey euh, dañuy nekk bitim réew yónnee ay sarax ci euh, sëriñ si waaye sarax yooyu duñ ko duñ ko génne est-ce que lii tey saraxu nit la wala tey yow yaa jóg rek pour génne sarax bi pour jaamu yàlla yi. waaw xam nga man bokk ma ak sëriñ yi man ni ma yàlla di bindee jamono jamono ji nekk dama koy wax bugguma sax bu may def émission lu ci bëree bëri man lu dul njub teg ko ci waxu dëgg du ma ko a ñëpp mun ta fexe ba loolu du egsi ci man man jaam yàlla yu bëree bëri damay jëflante ñoom ñu ngi may seetaan ci wàllu bitim réew moo xam Europe la moo xam Amérique la moo xam pépp ci àddina bi waaye damay wax ne képp koo xam ne dafa bëggee génn sarax sarax sëriñ moomu ko waaye nit nag mën naa doyloo sëriñ bi na ko sarax bi kat yaa ci doy defal ma ko waaye sarax sëriñ moomu ko pour lekk ko wala pour naan ko lii may def dama koy def pour jaam yàlla yi nga xam ne nekk nañ ci jafe-jafe wala nekk nañ ci souffrance xam ne am na yoon yoo xam ne yàlla tegal nañu fi parce que boo demee ci alxuraan da nga fekk nasrun minallaahi wa fadun xariban gis nga ndimbal la boo ñëwee ci wayansuruka laahu nasran asan yàlla dana la dimbale nasaraan ak seen gu yëkkati ko kon képp koo xam ne bëgg naa yëkkati ko képp koo xam ne bëgg naa am ka maanaam koom-koom wala bëgg naa am li nga xam ne moom moo di alal wala bëgg naa am li nga xam ne moo di wér-gu-yaram na ñëw seet si ñun ñu teg ci yoon woo xam ne dana ci jariñu sarax bii du def sarax la boo xam ne ñun ñoo ko def ngir wan jaam yàlla yi ne am na ba léegi nit ñi bu ñu dem naa fii gisuma sama bopp dem naa fële gisuma sama bopp kon léegi ne damay daal di toog déedéet ba léegi jaamu yàlla yi na yàlla mi fi nekk jeexut te yàlla mi ngi joxoon jaamu yàlla yi fi a aw ngir ñu mën a jëriñu incha allahu daal ay yoon a ngi fi ay mbir a ngi fi ay mbóot a ngi fi yoo xam ne jaamu yàlla war nañ mën a am koom-koom war nañ mën a am alal war nañ mën a am wér te wax dëgg yàlla duñ def lu neexul yàlla incha allah mi ngi noonu euh, comme ni nga ko waxee euh, am na tudd nga ko léegi muy ñi nga xamante ni tey ay jigéen lañ wala ay góor lañ ñii bëgg jëkkër ñi bëgg jabar mu tëleen euh, daanaka at yee ñi ngi dem mu nekk nag loo xam ne si nii phénomène la boo xam ne mi ngi ci réew mi ñu bëri nag am ci njàqare ndax mën nga ci ñëw tey ci ñaan yi nga xam ne si nii wala sarax yi nga xamante ni tey mën nga ko mën nga ci jëflante ak doomu aadama yi nga xamante ni soxla nañ loolu ngir bu dee jigéen la ñu am jëkkër bu dee góor la ñu am jabar xam rawaanam fu mu taxaw parce que nit ñëpp dañ tënku ci ñeent ci naari yu ci trois yu ci xawaa yu ak ci lawu dafa am ñoo xam ne seen rawaan dafa tënku ci ndox am ñoo xam ne seen rawaan dafa tënku ci safara am ñoo xam ne seen rawaan dafa tënku ci suuf am ñoo xam ne seen rawaan dafa tënku ci safara euh, am na ñoo xam ne bu bu leen jox ñu naam bu leen jox ñu takk waaye billaahi boo génnee seen sarax rek ñu takk àdduna bi xam leen am na koo xam ne li ko tënk ba mënut a am jëkkër mooy dafa jëflante ak jaam yàlla bi dem ba mu war koo takk mu war ko boo ne jaam yàlla bu mën a dem ci sëriñ ñu dëj ko am na koo xam ne rab moo ko téye am na koo xam ne ngelaw seytaan mooy dox ci yaram bi am na ñoo xam ne ñu bëri boo leen gisee dañuy jékki-jékki di sentir li dox seen yaram mel ne ay sanxalañ waaye bu ñu xoolee duñ ko dara fekk ngelaw la te bu métti mu leen di xalaat yoo xam ne gént yu raglu la te buñ demee hôpital buñ defee écho wala ñu def li nga xam ne moom moo di xaw ma nu gis dara parce que ngelaw la day dox ci yaram bi waaye dafay nëbb duñ a defee képp nga xam ne dafa nekk bitim réew bëgg ñu xoolal ko lii ngay gis ni bopp tan la kan moom ku nekk xam na ne dara ëpp ko xam-xam ci àdduna jaam yàlla bi dafay bu fekkee bitim réew la nekk 10 000 francs lay envoyé joxe turam ak tur yaayam wax ñu ñaata at la lu nekk ci wàllu dundam ñu wax ko ko moo xam lim passé moo xam li muy moo xam li ñu leeral ci kër mu du ma liggéey noonu képp koo xam ne dafa bëgg ma liggéeyal wax la rek lii ak dal déedéet man damay xool ba xam ba xam li xew ma door laa wax ne yu ci yoon bii nga jaar incha gaaw te yàlla mu ngi ñuy sutaal ba ñu ñuy jëflante ñëpp ñu wax na sëñ Modou Ladiane du bàkku waaye kenn du taxaw wax ne woo nañ ma ne sëñ Modou Ladiane am waaye naa ko xaalis sama garab jotuma ko wala wanaa ko jotuma ko man samay portable maa ko yoral sama bopp ku woote man ngay jot parce que sama xaa ku joxe xaalis man ngay jox noonu laa koy waxee jamono ji nekk ci fi ma jaar fépp te it fii ma jaar nii jaaroon naa fi fi jaaram noonu laa koy waxee incha allah képp ku jëflante incha allahu dina am tawféex parce que dañ koy wax ku nar a ñëw ci ñun te bu ñëwee du am tawféex yal na yàlla dox suñu moom waaye ku ñëw ci ñun te fekk bu ñëwee am tawféex yal na yàlla ubbee bëtam kon ku ñëw rek dañuy jàpp ne gis boppam waaye war naa war tawféex gaw ma ne feebar bu dul wér sëñ bi bépp feebar bu yàlla sàkk rek indi na lu koy saafara parce que alxuraan moo ñu wax ne maa farat naa fi kitaab min shay'in yàlla moo ne sama téere bi bawul dara te téere yàlla boobu du waxantu parce que mooy ndeyu téere benn waaye dama mën laaj ne ma ndax kuy football mën ko ñaanal ma ne ko yàlla maanaam li muy joxe bu fekkee ne rahman la yàlla ñëpp la ci yemale waaye bu dee rahim la yàlla mooy tànn ñu ko neex mu jox leen ko rahman mooy xéwal yi yàlla di joxe maanaam képp koo xam ne la moo xam nasaraan la moo xam moo xam yowoot la moo xam lu mu mën a doon rek xéwal gi yàgg maanaam ci bokk yam ku ci nekk la cay sa sens wala lay si wër sa yàlla dal la ko jox waaye bu dee rahim nag muy li nga xam ne moom mooy yërmandeem mooy ko sopp mooy xool ko neex moom yàlla mu jox la ko man ku rusu la judd rek wala rusu la dund rek rusuma séq ak yow ay ñaan te bu la ñaan la nga gis ci tawfeex bu neex yàlla incha allah. bopp tan bi euh, wax nga ko war nga ko sax mi ngi nii sa sa loxo nga yore euh, donc tan moom euh, ku nekk xam na ni ëllëg ëllëg dara dara ump ko ca am na ñoo xam ne dañ koy fanaanoo yow da ngay fanaanoo wala da ngay ñëw rek nga bopp tan bi nga woote léegi ñu seetal la léegi ci changé woota léegi ñu seetal la am na. ak bopp ma yor nii nga gis ñu ngi ci bind jërëjëf Borom Touba dañ ciy seet loxo la maanaam jaam bi dañ lay wax ne tàllal sa loxo nga tëri ci faatee ba mu jeex tafli ñu tàllal lii xoolal la ci am na ñoo xam ne mën nga woote léegi ñu lël suuf lay def ci suuf xoolal la mën nañ jël bopp tan bi fanaanoo la mën nañ la fanaanoo ci salaatul faatee maanaam seet da ngay dégg ñoo xam dañ naan seet dagunut waaw lan mooy seet xam nga alxuraan dafa wax ne listixaar listixaar mooy seet kii daf ko wax ci alxuraan ci arab kii wax ko ci olof kon jaam yàlla bi dañuy seet sax ci li nga xam ne moom moo di naam am na ak yeneen feet xeetu seet yoo xam ne bëri na waaye daal bu ci nekk rek jaam yàlla bi soo xoolee ba xam rawaanam fi mu taxaw rek xam fan la taxaw ci tubaab yu wala ci naar yu wala ci xawaa yu wala ci lawhu rek nga xam ci ban yoon ngay jaar ak moom am na ñoo xam ne jërul ñuy def lu ñaan suñ génnee sarax seen biir tàkk sax sur ma ko am na ñoo xam ne faaw nga defal leen xalwa wala nga defal leen riyaada riyaada mooy ngay waxtu yàlla wu nekk nga am yàlla woo xam ne moom nga liggéeyal jaam yàlla bi bu ko tëjul ñetti in wala juróom-ñaari fan wala sax weer mën na ko ëpp waaye jaam yàlla yu bëri bëri bo pour nga jox leen ñaan ñu jariñu faaw ñu jëfandiko parce que jàpp nañ ne soo leen joxee ñu joxut ñu jëfandiko rek munoo leen a faj te wax dëgg yàlla nit ñi fonk ñaan te respecté ko bëri na ñoo xam ne tardé nañ bëri na ñoo xam ne seen mbir mënul avancé ñu am kër mënuñoo am oto mënuñoo am dara wallaay li si laay laay laa xam nga lu leen tardeel mooy respecté wuñ ñaan te fonkuñ ko am na ñoo xam ne nag danañ am ñaan waaye seen rab moo ko yàq heure bu ñu jëfandikoo ñaan duñ ci gis benn résultant ñu ne sëriñ bi xamul dara lama ma jox baaxu déedéet donte sëriñ bi xam ne waaye am na lu des parce que am na koo xam ne boo ko joxee ñaan mu jëfandikoo ko maanaam euh, rabam moo yàq ñaan bi mu sawti bëri na ñoo xam ne Mahfouss soom rab la ñu sangoo te moom la ñu naan parce que da nga lay jox euh, saafara bi rab bi saw ja nga jëfandikoo ko doo gis benn résultat fekk saw rab nga jëfandikoo kon daal li yàlla may doomu ci xam may na ko ci rawaan may na ko ci xuddaam may na ko ci jinne may na ko ci seydaan waaye nag fan lañ rawante mooy ci yàqin ci ngëm-ngëm ak maanaam xel mi yàlla jox doomu bi am na jinne boo xam ne Mahfouss ni nga xamee jàngee la xat jaakum la ko jàngee ni nga jàngee atul kursu la ko jàngee ni nga wàccee kan bi la ko wàccee soo tasee ak moom tey te nekkul jullit boo amul chance mu duma la parce que soo tëree ayatu kursi mu tëri ko nga tëri la xajaaku mu tëri ko kooku noonu secret rek ngay am secret boo xam day duma jinne nga mën ko duma parce que yàlla dénk na doomu aadama dëxan ci moom loo xam ne dëxuñu ci saytaan wala ci jinne wala ci lu mën doon kon daal fexe ba am ismulaali asam bu wér nga di ko téye ko di ci liggéeyal borom bi subhanahu wa taala ba gërëm la ba wan la yoon yoo xam ne koo jàkkaarloog man nit day ñëw fii di moom moom mooy wax ci gémmiñu nit ki ne la lii ak lii moo ma booleeg moom wala nit moo ma booleeg moom wala nit moo ko liggéey jëmale ko man wala nangam nangam te loolu koy saafara bu neex yàlla incha allah. mais kon euh, sëñ Modou Ladiane dafay dafay dafa am ay jinne wala amul ay jinne. xam nga jinne bu ma ko waxoon tey ñu bëree bëree dañuy waaru xam nga bëri na xam ne dañuy wax ne jinne billaahi wallaahi euh, wa taala yi bëri na ku naan am naa jinne li ma xam ci mun ma dox benn minute boo xam ne jàkkaarloo ak jinne wala waxuma ak jinne wala jotatuma ak jinne. ah kon fii ma wax ni yaa ngi gis jinne. laa ilaaha illallaah parce que dama xam yàlla dama xam yàlla ba xamee ñu xamal ma lan mooy jinne xamal ma lan mooy nit xam na xam nga nit ak nite du benn na ku ñu naan waaye fekk na jëmmi nit daa fa nekk waaye moom nite wu du kon nag lan mooy jinne dëgg dëgg dëgg danañ am émission boo xam ne danañ toog ñu détaillé ci waxtaane ko leer na leer waaye li nit ñi di wooyee jinne wala li ñuy wooyee seetaan wala li ñuy wooyee xudaam wallaahi ak xudaam du benn kon jaamu yàlla yi bëri na ku naan am naa jinne amul dara day wax rek sëñ Mor Liane waxul ne am na jinne waxul ne benn jinne lay yebal mu dem fenn waaye moom chaque jour ma jàkkaarloo ak jinne chaque jour may wax ak loolu moom lu wér la waaye yónni ma benn jinne fenn man ci alxuraan yàlla bi laay man ci sunguf yi laay liggéeyee parce que dama la wax garab boo jël soo demee ci alxuraan fekk fa aaya bu méngoog moom wax naa la léegi wayen suru ko laaw nasran asen ne la wayen suru ko laaw yàlla dana la dimbale nasran asen am na garab bu mu tollal su ko doomu aadama bi xamee gëstu ko ba xam ko rek bu nit ki ñëwee rek mu taal ko ci incha allah bu euh, euh, yi mën ngeen koo gis ci bande écran bi bu ngeen ko soxlaa rek euh, sëñ Modou Ladiane ngeen awee foofu ngeen fekk ko fi nga xamante ni moom moo di Sébi Xotaan foofu moom mooy basam donc ñu gën a xuus ci waxtaan bi mu mu mel na que ni réew mi am na fu mu jëm ci ay élection élection locale yi léegi mu ñëw te politiciens yi daanaka xëccoo bi tàmbali naa bari ku nekk yaa ngi xëcc jëm sa côté yéen tamit yéen a ngi koy dund muy ñi nga xamante ni ay politiciens lañ di fëgg seen seen ay buntu euh, guddi ak bëccëg ngir bëgg ñu defal leen ay ay ñaan yooyu tamit yaa ngi koy dund wala yow gisagoo. wala gaa yi ñëwagul. waaw xam nga man lépp lu wax ci alxuraan laa koy teg man waxuma pour bëgg lu neex nit wala waxuma pour jot ci li nit yor parce que dama ne man yàlla sant naa yàlla parce que boo ma xam ne allah kulli alin bala maa faatu li ma war a jot dinaa ko jot xam nga lu ma war mooy sabab lu def li ma war a def waaye même bu ma feebaroon bay sukuraat sax li war a ñëw dana ñëw am na ay politiciens yu ma xamanteeg am na ñoo xam ne même bu dul élection damay jëflante ak ñoom loolu yàlla moo ko def ay jaam yàlla yoo xam ne yàlla moom boole ñoom waaye daal am nañ fi ay mbir yoo xam ne danañ ko sampee nit ci nag bu ñul kuk danañ ko sampee nit ci béy bu ñuul kuk dañ sampee nit ci xar mu ñuul kuk dañ sampee nit ci nag bu weex tàll dañ sampee nit ci nag bu euh, weex tàll ba ci gileen ba ci leen ba ci leen kon daal ki bëgg samp wala ki bëgg fa nekk kenn du ko fi wax naa ko ci njëlbéenu émission bi wala ki nga xam ne dafa bëgg a xëccoo nit ak place incha xam ne fii boo fa jaara yàlla la suutura te ñu ngi def yàlla dañ ci defal ndam ak suutura incha allah donc kon nag képp koo xam ne si ni tey euh, nguur soxal na la wala tey bëgg nga place euh, ñëwee ci Serigne Ladiane euh, su jëflante ak moom yàlla mën na ko may mu mu mu jot ci place boobu nga xam si ni moom la moom lay moom dama lay wax ne même xëccoo place même buñ la joxul nga sangu wala nga naan sarax rek mën na ko def. xam nga sarax nag li tax ñu bëree bëri tayal ci sarax yëpp la xam sarax yëpp la xam ku nekk xam nga sa sarax. ku ci nekk man dañ koy dañuy xam rawaanam xam bidiwam man koo wax saraxam nit boo ko waxee da wax saraxam da fen waxoo ko dëgg nit ki faaw nga xam fan la bidéom taxaw am na ñoo xam ne mënuñu seen bidéo mënoo ko xam mukk te seddul guyu maanaam faaw nga dem ba trois heures du am na ñoo ne digg bëccëg lay doon am na ñoo xam ne guddi lay doon am na ñoo ne naaju tàng lay doon noonu la amee ci am na garab yoo ne waroo ko wut bëccëg gis am na garab boo xam ne boo ko wut tey di ko xas boo xasee sa takk ndeer li tax ma xaw ko arrêté mooy jaam yàlla bi dañ may woon naan ma dama déggoon nga ne Issa Dia ko liggéey nangam nangam léegi bu ko defee dañuy daw defal jaam yàlla yi te fekk doxewul noonu secret bu ci dafa am lu ñu koy loolu jaam yàlla bi dafa ko war a tarbi yi ba xam ko ñu teg ko ci yoon yàlla mën ko cee defal ndam incha allah képp xam ne dafa bëgg a nekk maire waxuma sax maire wala dafa bëgg a nekk président wala dafa bëgg bokk ci yàlla gën a yëkkate incha allah su nee ñu liggéey ko wayan suru ko laaw nasan asan du samay wax waxi borom nasaraan ak seen ndimbal gu yëkkatiku kon nag képp ku yàlla dimbal ndimbal gu yëkkatiku lépp loo xëccoo da nga ci yëkkatiku ba ñëpp seen la incha allah bu neex am am bu gaaw ñu ngi koy ñu ngi koy wax ndax mën na nekk am am bu gaaw wallaahi la am am bu gaaw a gaaw doo def dara lu naqari ba subhaanahu wa taala yaa ngi koy amee ci bàyyi may borom bi subhaanahu wa taala doon wax léegi mooy ci xar wala ci bëy wala ci nag incha allahu nga am am am bu gaaw a gaaw te dara du wuuteeg lu dul tefeg jaamu yàlla boo xam ne moo lay teg ci yoon wala nga tefeg loo xam ne ay yeneen yoo xam ne mëni su ko wax nit ñi di ko xam waaye daal ki soxla ba jëflante ñun rek dana am tawfeex yàgg nañ koy wax Mahfouz yaakaar naa ne ay at a ngi nii wala ay weer a ngi nii ñu koy wax di ko waxtaane yàlla dogal suñu liggéey bëgg mu gën a yaatu ak bëgg lépp gën a ñoŋ moo tax ñu ñëw fii ci àll bi tuxu su fi muy si boko daan di fi def fi suñu baas jaam yàlla di na mel boo na waaye yëkkati ko am na te jaam yàlla am tawfeex li tax ñu gëm ko mooy jamono ju nekk dañuy sax di wax ne ku nar a ñëw tudd am tawfeex yàlla na yàlla dox suñu diggante ak moom te gëm nañ ne yàlla barkeel na suñu laamin ndax ñu fi ñëw ñëpp ñi nga am tawfeex ñi euh, mu ni euh, waxtu ngi mi ngi xëcc jëm ci li nga xamante ni moom moo di euh, jeex dañuy gën di dem rek jukki rapidement ci yeneen yeneen problème yoo xam ne si ni askan bi ñu ngi koy jàkkonte muy problème bi nga xam ne si jigéen ñi ñoo koy ëpp ñoo koy faral di di jàmbat muy ñàkk am doom ñoo xam ne si nii tey sëy nañ lu mat fukki at wala fukki at ak juróom ñu gis bant donc ëmb bu yàq sax mënuñu ko am loolu ñu bëri na rab la eh, eh, sëñ Ladiane rab la wax wala wala leneen la dafa am lu ci làqatu xam nga wala am doom moom li koy mën a def doomu aadama bëri am na nit sax mën na la xeex doo doom bëri ñoo xam ne tey dañuy sëy mais suñu jaxasoo seen jëkkër suñu paree bu ñu demee ci toilette yi bu ñu tuur ndox dañuy gis ne mënuw bi dafay wàccaat day tuuru mënuw bi nga xam ne moo waroon taxaw loolu rab daf koy def am na ñoo xam ne ci maanaam seen moom bëta parce que ni ku nekk war naa am lu man ñaar fukki million ci ay walax njaan bu fekkee ne manqué na wala walax njaani man na te activité bi ñu a am pour placé wu ci ku góor ki su su bala moo àgg day am na ñoo xam ne walax a placé wu wala jigéen wala muy xees wala muy ñuul lu lépp mbir la tey bu dee walax njaanu ku góor ki ku jigéen ki dañoo tase ku bu ci féete kaw rek loola moom la bosam bu dee ku jigéen ki moom benn ma ñaar tey boo séen lu mat ay millions mën nañoo génn waaye ñaar rek moo ci jàll wala boog benn moo ci jàll yooyu yëpp mbir la moo xam doy waar dama yàgg wax ne jigéen ñi man dama yàgg jëflante ñoom fanee passé rek am na ci li muy wax dafa ëpp bépp jigéen boo xam ne dafa ñàkk ndaw ko xam na ne loolu dama koy liggéey ndaw ndaw ndaw ndaw ko violé wallaay lesi laay la la man naa jox numéro am xam ne boo pare ni cinquante deux cent la am ragame du sëy parce que dañ ko violé bi mu nekkee demoon vacances te bi muy jàng mu ñëw ñu defal ko yàlla def na ko mu nekk ci sëy ba yàlla barkeel sëy ba tey ñu ko koy ñaanal ci leen ak ñeneen ak ñoo xam ne te yàgg nañ ko wax wax nañ ko ci ay sites yu bëree bëri mën naa koo tudd seen tur tey bu fekkoon woon wax dëgg yàlla euh, mën nekk leen mais sites yu bëree bëri mën nañ ko tudd tey boo demee tàpp ci internet ba gis ko képp ku am problème ndaw moo xam dañ ko violé wala dafa loo xam dafay delloo ndam su tëddee dana tudd liggéey bu neexee képp koo xam ne sàkkaraam dafa gàtt maanaam sàkkaram dafa gàtt am na lu ñu liggéey ci lo ci waxu xat lañ ko liggéey waxu waxu ku ne xam ne ma ngi ci alxuraan bu ñu ko jëlee liggéey ko am na mbonaan boo ko gisee maxfuus bopp bi dafay dugg di génn li ñu day ànd bopp mbonaan mu ci naan di ci rax ak nga gis ne sàkkaram dafay wàcc ba nam soxla mu toll mu toll ko te day dëgëral sàkkaram te bu ko neexee ñaar yoon wala ñett yoon parce que jaam yàlla yoo xam ne fi mu wala mooy kii borom soxna si borom kër pire mooy sacre doomu aadama su doxatul mënoo yilif kër bëri ñoo xam seen jabar yaa ngi taxawaalu fekk na buñ séyee duñ mën a am deux minutes ko am ci kaw jigéen te buñ daanoo bala ñoo séyati suba seen sàkkara day dellu ba gàtt dëgëratul te loolu li ko waral mooy fo ak taxawaalu ak mooy yàlla boo defee yooyu ñu bàyyi ko incha allah mi ngi noonu euh, sëriñ euh, Modou Ladiane moom la ñu fekkoon euh, fii nga xamante ni moom mooy ci àll bi mu fi amal liggéey ñu bett ko comme ni ma ko xëcc ci sama njëlbeeni njëlbeen di kàddu donc xam naa ni comme waxtu waxtu bi mi ngi xëcc jëm ci jëm ci jeex euh, dama lay bàyyi rek nga daal di euh, tàggatoo euh, ñu daal di yëkkati jotaay bi Serigne Modou. ñu ngi santaat yàlla bu baax di sant mboolem wàllu yàlla yi di am kontante lool ci déplacement bi ñëw fii jëflante ñun ñu ngi ciy sant baax di sant mboolem ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suivre euh, émission bi wala boog di bàyyi xel seen bi nga xam ne mooy a baax Mahfouz waaye di suñu caméraman bi nga xam ne wax dëgg yàlla moo nekk ci liggéey bi nga xam ne lépp lu fi baax wala lu fi rafet rek mooma waaye di gërëm ki nga xam ne moo di topp nga xam ne suñu wóolëre la démb la wax dëgg yàlla di gërëm ñëpp di gërëm giri bu baax a baax di ko ñëpp di waxaat encore ne yàlla mi nga xam ne moo ne yadu laa foo xëy ñu ko ñaan ci kàttanam waaye nga ñu ngi koy ñaan ci mbaaxam waaye ñu ngi koy ñaan ci xarañam moom mi nga xam ne xam lu nekk ci xelu doomu aadama waaye lépp lu doomu aadama nam rek moom yàlla xam na ko ku nar a ñëw te doo jaruñu rek yàlla na nëbbu say bët la gisaleeg ñun ba boo ñëwee ñu ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ko ci euh, nga xamante ni moom moo di àll bi mu fa ay liggéey yoo xam ne si def ko doon def jëm ci wàllum sarax dégg ngeen waxtaan yi nga xamante nii wax na ko fii ak euh, jàngoro yi wala euh, soxla yi nga xamante ni euh, da koy faj mu bëri nag mu bëree bëri mais xajul ci benn émission ba tax na dañuy koy tëj tey mais dañuy bàyyiwaat ba ay jamono jamono dinañ fi ñëwaat gën a yaatal bu baax a baax ndax li ñu war a waxtaan ak moom yaakaar naa ne xajul ci benn émission donc sëñ Modou ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñu doon topp numéro yaa ngi noonu ci barre écran bi mën ngeen a woo ki nga xamante ni moom mooy sëñ Modou Ladiane ngeen jëflante ak moom yàlla matale lépp di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen borom xam-xam jërë ngeen